fi may ñëkke moy di la laaj am na ku ko fi wax léegi dossier metal dina ci ñëwaat ndax tuddu nañ ko fi euh, ma japp ne bi ñuy dem bàyyi nañ leen ak dossier bo xam ne suñu digëntel état du Sénégal la won ak metal yalla dogal bi nga xamantene dem nañu euh, tribunal arbitral de Paris ñu gagné leen fofu bi ñu leen gagné ñu war ñoo jox 2500 milliards fekk bëggoon nañu négociation waxtaan waaye li ñu proposé ñu bañ ñu dem ak ñoom ci yoon ñu war ñoo jox 2500 milliards. bi ñu ko joxeet ci information yi ñu am mooy agence judiciaire de l' état moo waroon a signé jamono boobu lañ wax ministre bi nga xam ne moo toog tey fi nga toog moo fi toogoon moom moo signé ci place boobu indil ñu 75 milliards. ma lay laaj yow euh, euh, madame le ministre ndax yow ëllëg bu ñu amee yi ak benn entreprise ndax yow bu boobaa bu ñu ko yóbboo ci yoon ba war a jot xaalis ndax yow am nga droit signé wala agence judiciaire de l' état moo war a signé loolu danaa la laaj yow pour nga tontu foofu. monsieur le président euh, mon ami le président du groupe Serigne Cheikh euh, wax nga fii léegi maanaam benn accord bu 2500 milliards bu ñu waroon am alors mu bëgg rek ñu dugg ci benn comparaison bu ndaw 2500 milliards pour une entreprise une entreprise vous exploiter 100 milliards par année il lui faut 25 ans pour avoir 2500 milliards C'est chiffre d'affaires rek charge amul euh, frais de fonctionnement yi amul bénéfice une entreprise qui fait 100 milliards fondamentalement ces bénéfices peut-être on peut supposer même si c'est 20%. c'est quoi c'est 20 milliards alors entreprise Bobo, nan lañu ko munee top ba ñu am ak mom contentieux mun fay lu nga xamné mom sax quelle que soit l'exploitation, exploitation bu mu mënoon def ci ñun du ko ci am ça c'est un deuxièmement mom protocole bu ñu signé woon ak mom entreprise bi le montant bu mu devons investir c'était 1 milliard 666 millions d'euros la waron def investissement qui est contrat de base 1 milliard 666 millions d'euros comment investir loolu un milliard millions d'euros xam nga c'est 1089 milliards de francs CFA waaw ñu la milliards de francs CFA ñu am ak problème ñu il faut nga fay ñu milliards c'est pas possible donc ce n'est pas possible il ne faut pas que nous liggéey de di yàq askan lu et ça n'a jamais existé lu am kay mooy dañu góorgóorlu totalement parce que nous avons une fi ay contentieux on en a parlé c'est 34 milliards nous on s'est retrouvés retrouvé quand même avec 75 milliards d'indemnisation, après un contentieux de 34 qui nous a coûté plus de 100 milliards de frais en contentieux Moi, en définitive nous ko perdu en définitive dañu nous perte ñu am contentieux nous fay plus de 100 milliards finalement nous avons ñu 34 Mais pardonnez c'est ce qu'on a fait or que sans ça on s'est retrouvé avec 75 milliards 2500 milliards mënul am c'est impossible Quand on fan le mun mais est honnête. parce que 1000, c'est pas bon. mais mais tollu foofu même su ko exploité c'est impossible donc vraiment je suis quand même euh, par moment euh, sous mon franchement je vous beaucoup mais je quand même euh, insister Madame que y a information